yéesu dem na ni ko téere bi waxe wante histoire mu ngi ñuy nettali ne yeesu dina dimbali ñu bari ndax ñu xam borom bi yéesu dafay jàngale ne ñaari yoon ñoo am wante ñiy jaar ci yoon bu xat bi ñooy tasek seeni borom wante ñiy jaar ci yoon bu yaatu yi ñooñu soppuñu yàlla te bëgguñ ko noonu la bakkaar lañ ci jële bakkaar ci aadama wante ñu ngi jële yërmande ci Jésus Jésus mooy yoon bi mooy dëgg bi te képp ku ko topp doo sànku Yeesu nee na man maay yoon bi dëgg bi dund bi te kupp ku topp doo dox ci lëndëm yéesu yàlla dafa def sarax jaarale ko ci kattanam ndax bakkaarkat mën a mucc te bakkaarkat boobule deeyu yéesu ci bant ba moo ñu feyal suñu bori bakkaar ndax biibal gi nee na peyum bakkaar mooy dee waaye mayum yàlla mooy dund ba faw